Mbaye ñu ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak santa di jiital ci nuyoo bi nag euh, xalif bi muy sëñ Mbaye Marème mu jël nuyoo bi jox ko njaboot gi euh, ñu mën cee lim sëriñ Amdi Ndiaye sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Cheikh Ndiaye ak eh, ñeneen ak ñeneen daal di wax ne vraiment kontaan nañu tey pour teewewaat bis bi di santaat yàlla bi nga xamee ne comme ni ko président conseil départemental waxe yàlla boole nañu ci ñi nga xam ne tey mën nañu fekkee bis bii di sant nag suñu kilifa yooyu nga xam ne muy sëñ Babacar Ndiaye Thiargaan sëriñ Momar Maane Mbay ak sëriñ Aliou Diouf Lambaay nga xam ne dañ ñoo liggéeyal ba tey ci sëriñ Touba ci lislaam ba tey bis bi tey ñu mën ko di màggal di ko màggal fii ci Bawol di ko màggal feneen ak feneen bis yu mel nii donc ñu leen sant di ko gërëm bu loolu jàllee maa ngi nuyu monsieur le sous-préfet maa ngi nuyu le euh, euh, aussi l'honorable Pape di président du conseil départemental di nuyu le maire Pape Momar Ngom de di nuyu aussi le maire euh, Ndongo Faye de di nuyu le maire Moussa Thiaw de Tokiga di nuyu délégation yi fi am yëpp ñëw pour bis bi maa ngi nuyu aussi sama mbokk yi ñoo koy wax Biégué mu jóge ba Bambey ak benn benn Diouf jóge ba Réfal di nuyu délégation yëpp di nuyu aussi délégation monsieur le maire de l'ancien maire sama mag Cheikh Ndiaye di nuyu aussi délégation Soxna Aïda Mbodj bu ma limee defe naa bu ma waxee defe naa seen naa fi euh, président Fat euh, Sène donc maa ngi leen di nuyu ak ñi ngeen àndal ñëpp. di nuyu aussi délégation bi ma àndal vraiment di sant daal di wax ne vraiment kontaan nañ ci bis bi teew fi ah Solas bis bi nag vraiment ku ne xam na ko parce que wax naa ko dëgg la. Euh, kilifa yooyu ma waxoon li ñu def ba tey ñu am ngërëm ñu leen di kër ñu man lu dul di ko rafetlu bu loolu weesoo aussi maa ngi wax ah, bis bi bi ñu ko waxee taxaw nañ ci parce que ku fi ñëw ñun nga fi ñëwal donc bi comité d'organisation bi ñëwee sama bureau ñu waxtaan defe naa charte yañ ma tegoon yépp matal naa ko ma leen ci sant di leen gërëm parce que defaraat nañu courant bi indi nañu ndox mi ah vraiment indi nañu lii ànd ak euh, bis bi donc loolu ñu ci sant bi ci gërëm parce que xëñ na lu ñu war loola mais euh, ñoo ko war a def xëñ na xeeb nañ liñ ci def nag mais tàmbali bu ne euh, day xaw a xat mais suñu yéene ci bis bi ëpp na loolu bu loolu jàlloo bu loolu jàllee may wax rek en tant que maire de Lambaye dégg naa fi ay doléances yoo xam ne xëy na man de sama mébét sama ci mbir mi ci làmbaay mooy la ma waxoon rek ba ñuy dagaan baatu askan wi lu ma man danaa ko def parce que li ma bëgg ci Lambaye mooy li am Fatick di am Thiès di am Ndar di am feneen am làmbaay gii parce que nag wax ngeen fii tali tali bi moom dama leen di wax ne ñu ngi ci bu baax wax nañ borom réew mi te defe naa nangul ñu ñu ko nag nañu xaar tuuti incha allah bu yàggatul dara tali bi moom dinañ ci wax te di ngeen gis dara bu loolu weesoo aussi leneen li muy projet yi defe naa ñu ngi def li ñu man pour le moment parce que boo xoolee ñu ngi indi nañu courant defar nañu ay salle de classe defar nañ jox ñu ngi edde jigéen ñi ñu ngi eh, ñu ngi def ay set setal ak yeneen ak yeneen te benn at genn wàll mëtagu ko donc defe naa wañ bu ne ci benn lay tàmbali ah nit ñi xëy na yàkkamti nañu mais yéene rek pour defar làmbaay la loolu ne seen xel dal ñu ngi ci dinañ ci dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan bu bu loolu weesoo ah du ñu def lu euh, sant euh, comité d'organisation bi ci vraiment niñ taxawee ci bis bi euh, loolu vraiment xale yoo xam ne lañu a ah, xale yu bëgg seen réew la xale yu bëgg seen cosaan la xale yu bëgg seen dëkk la parce que boo ñëwee mexey xam ne man li may wax toujours dama naa bii ñaari dëkk yi dama ko dama leen naw ci làmbaay muy mexey làmbaay ak ceeb parce que vraiment xaaruñu nit ñi di leen jàppale wala leneen dañuy ñëw di liggéey nit ña fekk leen ci te bu ma sañan yeneen dëkk yi yëpp à commencer par sama bët dinañ roy ci mexey ak ceeb bu loolu weesoo aussi bala may jeexal dinaa wax ne daal ah euh, sama mbokku politiciens yi sama mbokku politiciens yi euh, dinaa leen waxaat ne leen euh, làmbaay du euh, tële wala ma bëgg ndimbal wala leneen mais dama bëgg ñu defar làmbaay donc may tàllal ñëpp loxo. fi toogee juróomi at wala mu toog fi fukki at yàllaa xam bu jeexalee dañ ne ah bas bay mii daal la mu waxoon la mu jëfoon. ku ko jox làmbaay dina dem mais boo nee am naa idée bu baax bu ma ko joxee docteur Assane moo koy moo koy jëfandikoo loolu nax sa bopp la man daal bu ma sañoon ñu toog waxtaan defar làmbaay ànd defar làmbaay parce que lii jeunesse su Mékhé bi wax xale yi Mékhé yi di eh, ak jéego yiñ def bu ko ñeneen defan parce que mbooloo mooy doole te wax nañ fi soxla nañ fi euh, tali soxla nañ fi leneen ak leneen ah vraiment ànd liggéey loolu mooy solo euh, développement donc mooy sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne nag euh, xel day fattu sama jarbaat Faat fay maa ngi koy nuyu di ko gërëm responsable politique donc ak délégation bi mu àndal yëpp donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen